ubbi l'observateur moom njiitu réew mi ci waxtaan wu mu séq waa express dip média bu nekk ca France bañ ko laajee ca waxtaan wa ndax dafay doon candidat la mu leen tontu moo di laaj bi laaj na ma ko ay yooni yoon waaye la ma ci waxoon rek laa cay waxaat la ma ciy def bés bu jotee dinaa ko wax ñi ma ko war a wax mu di ñi ma bokkal langue politique ak askanu Sénégal Macky dool ci ne ñi ànd ak man ñoo ngi may investir ngir bëgg ma doon candidat ndax danaa ko doon am déet Sall presque candidat anki dina kay xëy di laaj ci xëta mu njëkk baadu Macky Sall dafa bëgg a teggi tànkam fa mu ko tegoon nee na constitution bi li mu jàpp mooy mandat juróom-ñaari bi ñu ma njëkk a fal bokkul ci ñaari mandat yi ma constitution bi di wàññil waaye ak lu ci mën di xew wax ca su danaa ca joxe sama position Walf Quotidien gis ne wax waxeet mi ngi xeeñ lise ko gis ne Macky Sall ngi gën di jege troisième candidature nee a sensé la te journaliste yuy gëstoo ko xeltu ci wàllu politique ci réew mi ñoo ngi wax ci l'observateur ni ñu jàngatee kàddu yi président Macky Sall yëkkati ci yéenekaay bi di express euh, keneen ku xëy di ko jàngat ci l'observateur mooy Alassane Ndao di docteur ci wàllu sociologie politique journal bés bi le jour xëyee ci xëtamu njëkk photo bu Macky Sall toogee ci kanamu oto tëye baar bi mel ni koy dawal yéenekaay bi bind ne Macky foncé na ci waxi troisième mandat yi foncé na ci mbiri Ousmane Sonko Macky Sall nee na xamul lan nga xoqatal état bi wala nga mën a bloquer justice nga soloxo ci ëkk yaa ngi nax sa woon ci Sénégal kon kaaw Ousmane Sonko féete na bor bu yàgg président de la république Macky Sall ci xët mu njëkku la Sénégal ci mu doon waxtaan ak yéenekaay bii di journal L'Express ci la yéenekaay bii di la Sénégal xëyti bu Macky Sall di fa xam la ne bëgg rëcc ci yoon mënut tax benn leader politique muy wàcce nit ñi ci mbedd mi ak di leen instrumentaliser kii ñu jàpp ne moomoom wax ji di Ousmane Sonko moo xëy moomee xët mu njëkku Vox Populi journal ñu jëme woon ci moom li ko na li ñu ko sotti keroog lu mu doon le témoin nañu Sonko yamu ca sàkku na ci partisan mi it ñu wéyal xeex bi fi ñu teg seen tànk ñu bañ ko teggi lise ko nañu Sonko mi ngi nësër bésub désobéissance civile mu di bëccëg goo xam ne kenn du déggal kenn akub grève générale ci réew mi ci secteur yëpp ngir naqaru li mu jàppe régime antidémocratique gi mu ne moom la la Macky Sall ak ñi mu àndal indi ci réew mi ci xët mu njëkk l'observateur lenn ci kàddu yu Ousmane Sonko yëkkati démb mu fay wax ne ay soldaar lañu te ab soldaar li ko war mooy xeex gars yi Pastef yu ñu teg loxo ak ñool ñool yi njiital parti Pastef li di dund jamono ji journal l'info li mu ci gis mooy chasse aux patriotes maanaam ñoñam yi la ñuy tongal ci ñoñam yooyee ñuy tongal Le Quotidien xëy na dañu bu Pastef ca Pikine coordonnateur bu ñu xibaar ne am bu góor bu ñàkk bakkanam manifester yu ñu fa doon def ngir doon sàkku ñi ñu jàppoon ci manifestation yi ñuy libéré leen libération nañu xale bu góor boobee faatu ci Bignona Mamadou Koxka ba la tudd tantam nee na balu fital dañu ko dóor ci bopp am na it keneen ku ñu naan Sadio Dramé li ñu ne woon dafa faatu libération nee nañu loolee amul li am ci réew mi mu di kilifa diine yi manqué respect di leen sàllawul ak di xotti seen warma source mi ngi ñuy xamal ne am na ñu jóg ngir xeex ko ngir mu jóge fi ab mouvement la bu judd ci réew mi ñu naan ko aar ndonoy mag ñi docteur Khadim Bousso moo ko jiite mouvement la boo xam ne yéenekaay bi di source mi ngi xamal ne mboolem kër yi diine yi ci réew mi tarixe yi ci réew mi tarixe bu ca nekk am na ci représentant mouvement aar ndono mag ñi ko taxawal nee nañu ñoo gis ñuy sàllawlu wala ñuy manqué respect kilifa diine ci réew mi abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci réew